ñu ngi am mbégte di am kontaan di siyaare mbokku internet yi rawatina mbokku Sénégal 5 point com jëmm ji nag ma toogal yaakaar naa ne gëjoon ngeen koy gis trop waaye gis kuraa bi taxoon di ma ko laaj dama la nga jëli ceeg dama lu ma leen wax rek ki ngeen soxla rek saa su nekk naa fexe def fi sama kémtulaay kàttan pour amal leen ko fas yéene waxtaan ak moom nag si combat yi nga xamante ne ñu ngi fa jéem ba doxoon si diggante Balla Gaye ak kii tuuti rek si Modou Lo Ama Baldé mais dañuy tënk comme que dañ koo bett rek waaw Siteu maa ngi lay nuyu Siteu numéro 2 maa ngi lay nuyu euh, di nuyu Sénégal 5 euh, di ziar ñëpp nag mbokk internet yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar euh, xam naa tey moom def nga yëfu jinne quoi wax dëgg yàlla fexe nga ba loqati ma ñëw rek bett ma nii na ma na ma daal il faut nga wax si làmb ji ah ma am lu ma si kët sànni tuuti rek. waaw loolu moo tax tey nuyu naa ñëpp daal ziar ñëpp. Mhm. yàlla na yàlla def jàmm Sénégal. Mhm. avant may dugg rek mu mel ni cek gëj nañ koo gis mu ngi woon si ay liggéeyam. Mhm. ak cek lan moo waral nëbbatu bu kii bi bu xaw a raar bi gaa gëj laa gis actualité làmb ak yu demee noonu. waaw xam nga làmb moom daanaka damaa bàyyi. bëre bëre. wante bàyyiwuma làmb mhm. ndax tey di nga bàyyi bëre wante doo bàyyi làmb ndax mhm. tey ñi nga war a conseil yaa ngi leen di conseil mhm. ñi lay laaj sa xalaat si làmb Mm-hmm. bu ñu amee combat ñu wax la mm-hmm. nga wax si sa li nga si xam mm-hmm. motax tax mënuma bàyyi lamb da ya ngi ni bett ma te li may laaj affaire lamb la affaire lamb la luma lay laaj affaire lamb la ñu jëm si combat bu am solo dox digënté bëmbër jé ak Balla gey de bëmbër jé ngeen ngeena bëré yeen qualité nga gis né manam tay ji war nako mëna défaat pour contre mo Balla gey revanche bi du mëna yomb ci Balla wa combat la bo xamné combat bu neex la ah. ndax tay xolé ñom ñaar bëré won nañ jé euh, am ndam Mm-hmm. si combat euh, moom ak Balla Gaye Bombardier am mm-hmm. ndam. Mm-hmm. tey Balla Gaye nekk koo xam ne tamit day jël si revanche. te kiy jël si revanche chaque jour rek moom mooy gën a bëgg làmb. waaw ndax moom tey dañ ko daanoon. mu ñëwaat na tey liñ ma daane woon erreur la. dafa am loo xam ne tey dama ko war a ñëw wane. loolu moo tax tey mu jël combat mu nekk combat boo xam ne combat bu neex. jee mu nekk nit koo xam ne tamit ku ree bëreel la. wante nit ki moom yaay am gëm rek. te xam naa ne Balla. ni ma gisee euh, ñoom ñaar seen sortie yi. Mhm. am na gëm-gëm ne moom dafa war a ñëw jël si revanche. Mhm. waaw mu nekk combat boo xam ne combat bu neex la daal. Mhm. tey jii boo indi woon Bombardier lan nga ko war a mën a bëreloo si contre moom Balla Gaye ba mu yomb comme ni mu yombee woon bee paase wala mu gën koo yomb. noo xam nga Bombardier moom daanaka bëreem. moom lu muy ñëw du changer. ndax du reculer. day ñëw bëre. te ndax ñu bëri damay dégg sax ñu ne Balla gay mooy favori si bi. maanaam nit ki mënula daan ba pare. Mhm. nga nekk favori si kawam. kon tey Bombardier mooy favori. si mhm. combat bi. Mhm. Balla Gaye fa ñëw pour jël si revanche. waaw revanche bu muy jël si nag. ñëw na pour jël si revanche làmb la. ñoom ñaar bëre nañ kii daan morom bi. kii war a ñëw na tey. war naa ñëw war a def 1-1 mu nekk 2-1. sans départ. sans départ bu nga wax nga ko sànq sa biir wax nga ne Bombardier ku naq dee bëre la naq dee bëre si yan façon côté mystique bi non non xam nga Bombardier moom ñëpp xam nañu ne style bi muy indi. Mhm. Euh, làmb bu muy bu muy incarné. Mhm. ba mu bañ ko xamee si làmb ba léegi. Mhm. loolu la xam. loolu lay indi. ah mu nekk nit koo xam ne tey euh, lu muy bëree moom du ko changé. du changé. Balla nag bëri na ay façon bëri na ay façon bëre. bëre yoo xam ne mhm. tey mën nga ko mhm. xaar fii muy ni leneen. Mhm. waaw moo tax tey Bombardier ñëpp xam nañ qualité bu muy bëre. Balla nag moom bëri na ay ay bëre waaw foofu laa waxee quoi. nga jàpp ne Bombardier tey jii war naa mën a indil Balla Gaye beneen xeex bu bokk ak bu mu ko indiloon bu njëkk parce que bu njëkk dañoo gis ne at bi dafa suble ñu dox dajee Bombardier dóor ko ku laaw jàpp ko bi yoon dafa war a taxaw pour bagarre waaw xam naa loolu moom ñu koy conseillé dinañ ko conseillé lu ñu koy conseillé rek ndax tey euh, nit ki moom am na loo xam ne tey euh, mënoo dem ba nekk ba ni nga jëlee roi de arènes. Mhm. dem ba nekk roi des arènes ñëw di changer sa mënin. dëgg la waaw di changer sa mënin Balla euh, Bombardier ñëpp xam nañ tey lu muy bëree. Mhm. lu muy bëree moom mooy dalay taxaw xaar la. Mhm. boo ñëwul mu ñëw. Balla nee ko tamit man damay ñëw. damay ñëw kon tey combat la boo xam ne combat bu neex la. te combat boo xam ne tey. Euh, la mooy jël si revanche. kuy jël si revanche daanaka moom. da ngay ñëw bu Bombardier ñëwul moo ñëw mu ñëw. Mhm. xam naa ne du xaar sax pour Bombardier ñëw moom moo mhm. war a ñëw. yoon. Mhm. jàpp nga si combat bi mu gaaw. waaw combat bi xam naa ne combat bu gaaw lay doon. combat gaaw lay doon waaw bu gaaw lay doon ndax xamul tax. Bombardier du reculer. te Balla tamit du reculer. du reculer tey ñoom ñaar dañuy dox daje. xam naa ne combat bu neex la boom ku yéex sax boo moytu doo gis jël bi. combat bi. ku yéex doo gis jël bi. Mhm. waaw ku yéex doo gis jël bi mhm. combat bu neex la daal. séntu ko si bëree am si carrément wala da jàpp ne si benn jàppante lay jeexee. man nag gëm naa ne si bëre lay jeexee. Mhm. waaw man ni ma gisee mën nañ xeex nag maanaam si bëree la combat bi di jeexee. waaw mu ñëw teel a jàpp moo ko arrangé wala mu ñëw bàyyi Balla jàpp mu bëree moom ban moo ko si gën a arrangé. dégguma Bombardier arrangement mooy arbitre mu ñëw fexe njëkk a jàpp Balla wala Balla arrangement mooy mu njëkk jàpp jàpp Bombardier Bombardier ndax mu njëkk jàpp mooy arrangement am. waaw ñoom moom laa la expliqué xam nga Bombardier mën na jàppante. Mhm. ndax combat la boo xam ne daal l'essentiel. Mhm. Balla day ñëw. day ñëw. Bombardier du reculer. du reculer kon ñoom ñaar ñoom xam naa ne combat bu ñuy teel a jàppante la. Mhm. te lu yàgg yàgg si bëre lay jeexee man gëw ma ne man mu jeexee si xeex. dinañ xeex nag. Mhm. wante si bëre lay jeexee. si bëre lay jeexee. waaw. Mhm. tey jii kaw Balla Gaye boo ko indi woon stade nga koy digal mu bëree ko Bombardier comme que moom moo jël si revanche. waaw ku jël si revanche moom tey da nga a ñëw rek ne tey du daanu tey dama war a ñëw daan. daan combat moom amul leneen loo xam ne lu tey di nga calculer nag ndax tey di nga xam ne tey ki ngay bëreel. moo la mhm. jiitu si bëre façon tàkkusaan bu ne am nga ko. lépp loo si mën a kii moo la jiitu si la euh, moo la jiitu si bëre. si bëre jiitu la si làmb dem ba nekk roi des arènes deux fois. kon mhm. tey war nga ko jox benn cër boo xam ne tey pour ñëw war a mën a ñëw bëre moom. Mhm. tranquillement mhm. lu yàlla def nga xam loolu yàlla def. waaw est-ce que Balla Gaye daanoo damay fay kuut noonu du bëre xam du bëre loolu warul warul warul bëre loolu ndax tey daan na ko war na ñëw mën a jël si revanche kuy jël si revanche moom chaque jour da ngay jaakaar ne yow moom ki ngay bëreel moom danga nga war a ñëw daan ko pour a ñëpp ñibbi. Mm-hmm. waaw man loolu laa loolu la loolu la loolu la loolu laa gis si làmb ji quoi kuy jël si revanche chaque jour rek yow yaay gën a soxla. yaay gën a soxla waaw dem na moom moo la daanoon dem ngeen ba làmb boolewaat leen. Mm-hmm. nga war a ñëw jël sa revanche. Mm-hmm. bu njëkk ba na ne erreur la woon. ah lii nag moo tax nga war a ñëw pour réparer erreur bi. waaw est-ce que gis nga ne Balla Gaye baal bi suble war naa mën a bàyyi Bombardier combat bi. ah non non du ko bàyyi bi. ndax combat moom bu at bi soufflé. dina am loo xam ne di nga ko calculer tuuti après nag. lu wara def nak yow yaay xol nak li nga wara def nga def ko. ndax lam mom bu adu soufflé rek di nga may ki ngay beurel ben battement touti na nga xol ki lan la indi. Mhm. wa bu paree nak nga soog def li nga wara def. ñu gis ni signature bi ñom ñaar dañu ñëmé wante trop est-ce que bala nekul di nax ba mbeur jé parce que wane nako nako carrément ragaluma la wane nako carrément dan nga ma mais ba may dan dama fébaron est-ce que bala communication bi muy tégal ba mbeur jé du stratégie ba mbeur jé non xamna né mom nekul pour ay question ragal ndax euh, Balla moom dafa naa ne waratul waratul ragal mbër. waa te daanaka boo xoolee ay làmbam yëpp moom buy signature signature bi moom nii la nii am benn signature boo xam ne dina ñëw war na loo xam ne lu lu kii la quoi moom nu muy nu muy bëree. moom lañ loolu lay signé. Mhm. lu yàlla def nag mu xam ne loolu la yàlla def. waaw xam naa ne combat daal boo xam ne combat bu neex diggante Bombardier ak Balla Gaye. Mhm. waaw ndax combat ku yéex doo gis jël bi. Mhm. Bombardier. du daw. Balla tamit du daw xam nga ñaar ñooñu nag boo leen boolee. ah combat bu neex la daal. combat bu neex la waaw combat bu neex la ki nga xam ne du daw kee nga xam ne du daw. ñoom dañuy attaque. dañuy attaqué waaw. nga jàpp ne foofu tey jii Balla Gaye ba arbitre ñoom prix mu wàcc xeex ba daw njëkkalante tànk Bombardier comme que gars yi dañu Bombardier dafa diisee kaw nga xam ne du nekk avantage si moom par rapport mu taxaw bëgg a bagaar benn benn doo ko jàpp. waaw xamoo moom xam na tey euh, boo ko Bombardier daane. Mhm. jële na si ay jàngat yu bëri. Mhm. am na lu mu am na nag lu muy indi loo xam ne tey. Mhm. combat ma ak Bombardier. war na ko indi. war na ko indi waaw lu mu koy indi mooy. tey ñëpp xam nañu Balla tey du arbitre bi suuf la rek mu ñëw di jëlee sa tànk. la nit ki tey am loo xam ne boo ko mënul boo ko boo ko deful. ba tay combat jékki-jékki Bombardier rek ñu ne arbitre souffle nga ñëw jël sa tankam ni mhm. amna yo xamne man nga nek tay ci erreur. dina calculer nak quoi. Mhm. tay man nga xex ak nit. Mhm. xamula mu joom nga japp tank bu daan ko man nga def lu ne wante arbitre souffle rek nga ñew na da ngay japp tank bi moom lolu amul fenn. wa amul ñëw rek bëgg a yenn yóor nga xamanteni ni ko ci yoon. wa amna dina ko tek ci yoon dina tek yom ci combat bi dina ko tek ci yoon quoi. sentu ko ci si mystique. waaw mystique moom ku fay ku ne di nga wara def di nga ànd ak say mbokk def li nga wara def wa li si des mom moom yàlla dogal wa yalla moy dogal man loolu la gëm quoi. wa mo non mom la la affaire musique yoy duma ci si sori tay dañu fay Balla Gaye fay Bombardier kenn ku nek yaangi ngi ak say mbokk lepp lo xam nak lu indi ndam di nga ko def wante yalla moy dogal lu yalla dogal rek ñu xam ne loolu la yalla dogal <laughs> loolu la gëm. ah xam na mën na nag mën na nekk ay tetal am na ñoo xam ne tamit tànk bu ñu defee li ñuy def dañuy bëgg a dem pour jékki-jékki rek bëgg a dem stade xam nga war na teel a ñëw def seen i bagage def seen i liggéey pour mën a teel a préparer si mën a pare si combat bi waaw mën a pare si combat bi. waaw xam nga sëriñ moom dina wax wante lu si des moom yàlla mooy dogal xam tey nit moom mooy lu ñuy wax rek. nit ki tey di gis sëriñ mu ne la tey boo demee làmb ja da ngay daan nga dem daanu yàlla mooy dogal nit ki nag di nga ànd ak say mbokk def li nga war a def fépp foo xam di lañ di nga fa dugg def li nga war a def ndax dañoo fay kii fay la li si des nag yàlla moom mooy dogal nit ki moom la l'essentiel respecter say entrement li si des nag nga xam ne nga bàyyi ko si loxol suñu borom waa moom mooy dëjër bi boobu